am na ñoo xam seen engagement peut-être je sais pas il y en a qui sur le nombre de vie sur le nombre de partage voilà du coup boo buggee am nombre de vues wala nombre de partages tu touches à des yoo xamante ni non seulement ils sont sensibles mais tu les maîtrises pas yaa ngi dégg man je voudrais qu'on en revienne man suma live bi à l'engagement politique en fait dafa am solo parce que dama seetaan boroom xam-xam bu tudd Babacar Justin Diagne Justin Diagne wala Justin Diagne c'est un politologue il avait dit que Sonko Ousmane Sonko bu continuer ci lancé bi mu nekk nii bu deful erreur mën na am dara mais je pense que képp ñi nga xam en tout cas ils suivent Ousmane Sonko depuis le début yàlla mi ngi koy suturaal quoi je dis pas que du def erreur parce que c'est un humain comme tout le monde mais erreur yomb ko. bu fekkente dañuy suivre rek trajectoire même au-delà de son engagement politique bi mu commencé même si profession am quand tu l'as voulu créer le syndicat bi nekkoon impôt au domaine y a eu des par rapport ak Ablaye Wade il s'est battu ba mettre ko en place ba fi mu yegg si tey je dis pas que mosul def erreur parce que c'est nu humain comme tout le monde mais bariwul li muy def erreur donc borom xam-xam bu mel ni Babacar Justin Ndiaye bu nee Sonko bu su bu poursuivre en tout cas ci dynamique bi mu nekk nii te deful erreur bu ko mën a yaakaar fii ba 2024 am na mille chance am na mille chance pour am dal man sama problème nekkul ci sunk ko parce que ci li ma woon par rapport ak parcours am ak discours am man am naa njott bu rafet donte nit la mën na juum. am naa njot bu rafet ni il va tenir le cap quoi dina dem ba 2024 te nit du ko te nit du ko xool wala mu wax ko lu mu koy xeebe parce que xam na boppam mais xam nga problème bi fi mu ne patriote yi patriote yi ñoo na a yàqal Sonko te patriote yi nar a yàqal Sonko nit dina ko yàqal parce que dafay woote ne patriote la te yàlla xam na ne du patriote dafa ñëw pour yàq mais nit sax ci àqulaay taalaam dina gëm ne patriote la dafa bëgg jàppale Sonko mais ci biir jàppale mu koy jàppale mu yàqal ko. parce que Sonko xam-xam lay wax donc boo amul xam-xam melal di man del j'aime del partager del def kër tey tàccu parce que nag combat bi loolu la laaj borom xam-xam yi nañuy wax borom mbooloo yi di daje mbooloo ñi nga xam dañu war a tàccu di tàccu ñi nga xam dañu war a noppi dañu war a noppi comme man. voilà mais si tu veux plaire à tout le monde si tu veux le buzz c'est Sonko qui fait le buzz je utiliser le nom de Sonko parce que ñun suñu engagement politique bi. Pastef ni mu bindoo kenn moom ko mais Pastef dafa bindoo noo xamante ne nii c'est assez complexe de bout en bout parce que li ñu xam traditionnellement au Sénégal mooy un gars bu mel ni man ñëw am xaalis créer parti politique di bum di bumi léegi Pastef nekkul ci extrémité boobu noonu Ousmane ko moom yorul Pastef maanaam génnee xaalisam ne waaw lu luye chaise luye bâche kërëb kërëb jàppal bàyyi Pastef melul noonu. comme yu parti yu bëri parti traditionnel yu bëri avec tous les con toutes les conséquences yi nga xamante ni dañ koy remarqué ci beneen angle nga am ci beneen extrémité bi parti boo xamante ne nii c'est pas l'homme providence moo fi nekk di di di di financer di buma ko bumi mais dafa am des citoyens de la situation actuelle du Sénégal ñu décider porter un combat moom parti bi Pastef loolu la gën a jege parce que Ousmane Sonko créewul Pastef il faut gars yi comprendre ko. créé wul Pastef donc Ousmane Sonko mënul yor Pastef comme ni Ablaye moo moomee partem yor ko di ko financé comme ni Macky Sall ak les autres Ous Moustapha Niass et tout moomee woon seen parti di ko financé di ci buum di ci buum di ci def lu leen neex di ci décider Pastef melul noonu bindawul noonu buggul noonu te doxewul noonu Pastef parti la boo xamante ni ay nit ñu bokk objectif la pour le Sénégal téye ko di ko autofinancé nag amul benn financement boo xam individuel la borom parti bi yor ko mais ñëpp di ko financé loolu nag ñun si côté extrémité boobu la Pastef gën a jege dafa am beneen affaire benn dafa am nag lu problème bu nekk ci ci ci ci ci ci ci ci ci option boobu noonu parce que man mën naay joxe xaalis mais sama engagement ak sama patriotisme moo tax may joxe xaalis wala may joxe suma wala may joxe sama xam en tout cas may jóg di dox ci Pastef mais boo dajalee lu ñëpp moom ci ñëpp ñooñu daf ci am ñoo xamante nii dañu jàpp que ne bu ñuy joxe wala ñu am mbooloo wala ñuy def dara rek ils ont droit à la parole dañu war a wax même bu ñu amul xam-xam même s'ils ont rien à dire comme man dañuy wax rek parce que ouais Pastef la j'ai cotisé j'ai machin j'ai participé à tel link j'ai fait machin truc donc voilà j'ai droit à la parole voilà maintenant comme Pastef mooy parti bi nga xamante ne nii c'est le parti des réseaux sociaux et on te dañ ko te duñu ko dàq loolu dañu koy nangu dina ma permettre ma ñëw un peu ci li nga xamante ni dinaa ci woo peut-être les patriotes Pastef ci boppam ci réseaux sociaux yi mu am benn taxawaay buñ ci am pour di leeral lu bari parce que buñ la nee parti réseaux sociaux nga ne nga jël réseaux sociaux yi nag bàyyi ko noonu noonu am na lu muy indi ci lu baax de parce que à travers les réseaux sociaux on fait passer notre message mais aussi dafa am le revers de la médaille moi je pense que réseaux sociaux yi toll na foo xamante même s'il faut créer benn cellule boo xamante ni dafay gérer réseaux sociaux yi comprendre parce que li ci complexe xam nga mooy lan benn gars bu man mel ni man bu ñëwee di yuuxu Pastef Pastef Pastef Pastef Pastef Pastef laal ay sujets sensibles xam nga des sujets brûlants yoo xamante ni les gens ils vont venir parce que les gens qui te suivent même si y si tu as dix mille vues sur les dix mille vues il est pas dit que les accord ak yow li ngay wax ah. amul lenn luy que les gens ils viennent voir souvent par curiosité pour avoir Parce que moi, je vois beaucoup de gars qui ont des bons Ils ne parlent pas seulement au nom de PASSEF, ils parlent pour le Sénégal. Parce que l'affaire, c'est une question de principe. li may xeexal veux su ma ko gisee c'est fenen. du damay jóge Pastef dem fa de mais dama koy xeex parce que ay principe la c'est des c'est c'est ay principe ngay xeex loolu dafa am solo bu ñu dem rek ci ci ci ci optique waaye on est des patriotes on est des patriotes être patriote dafa am définition quoi être patriote c'est pas être militant de Ousmane Sonko ça va au-delà de ça parce que le combat qu'on mène mène aujourd'hui le combat ñun ñoo ko moom mais Ousmane Sonko moomuñu ko yàlla moom moo ko moom yàlla bés bu décidé que ne combat Ousmane Sonko ci Pastef fii la yem dafay yem su boobaa combat bi dafa war a continuer Ousmane Sonko c'est notre leader on est fier ñu am ko suñu kanam. Mais il faut qu'on sache définir le concept de patriotisme en fait. Le patriotisme, ça va plus vers le Sénégal en tant que Sénégal, vers, vers le Sénégalais que vers un individu. Quand on nekk Ousmane Sonko, quand on est Kenneth. Man, je Ousmane Sonko jàmbaar Man, je me bats pour le, mon peuple, je me bats pour le Sénégal. Je ne crois pas à l'homme providentiel. Je crois à un combat incarné par un leader qui ngi tenir quoi mais ñun dinañ ko yàqal ñun on va foutre en l'air ce combat là en fait parce que y a des gens qui doivent pas parler qui qui en fait comme man même pour am buzz ils vont toucher des sujets sensibles man je fais des vidéos il m'arrive de parler des des hommes religieux mais à chaque fois je précise certains hommes religieux parce que y a des hommes religieux yoo xamante ni nii dañuy woote tur bi ko mais y a y a des symboles Cheikh Amadou Bamba c'est un symbole. loolu affaire politique c'est pas un débat et ça revient sur un truc boo xam dama tàmm di ko wax mooy la tropicalisation des concepts ñun on prend des concepts à l'européenne des concepts à l'occidental on vient on le on, on l'impose à des à, à nos réalités qui n'ont rien à avec tout ça te loolu moom moo ñuy daal on parle de démocratie même ici ñu ñuy woowee les démocraties majeures en fait en France bi demee non même le concept de de de, de démocratie est remis en cause. La loi de la majorité démos kratos, le pouvoir du peuple, s'est remis en cause. Regardez dans les dernières dix décennies-là, toutes les lois-là qu'on vote, c'est des lois, c'est pour des minorités. Le concept de démocratie est remis en cause. Parce que ku ci jaar école dañ lay jàngal que ne la démocratie c'est le moyen mauvais des systèmes de gouvernant des systèmes politiques donc baaxul dafa bëri ay failles. parce que après loolu mooy indi on parle de liberté on parle de liberté individuelle mais liberté absolue amul maintenant c'est cette même liberté là qui me permettait ma toog fii di wax ak yéen di raconter du n'importe quoi c'est cette même liberté là de parole de wax ak réseaux sociaux yi ni mu ko amplifier moom mooy permettre peut-être ñeneen ñi ñëw di wax mais di wax sur des sujets yoo xam ne ki ki ki ne maîtrise pas en fait et c'est ce qui est le font au nom de Pastef au nom des patriotes moi je moo le plus important mooy man li may wax ban valeur ajoutée lay indi ci combat bi quoi. parce que beneen affaire boo koy xool aussi dafa am ñaari affaire yu am mooy tey dañu bëgg a jël Pastef def ko un parti boo xamante ne ni du ñu saaga benn parti warul saaga duñu xaste xam-xam la ak leneen ak leneen ak leneen mais tous les militants de Pastef n'épousent pas forcément. tout ces réalités là yooyu noonu ñuy wax bu ñu jël Ousmane Sonko def ko yàlla parce que nit kese la bu ñu jël Ousmane Sonko def ko yàlla parce que kese la mais comme on le dit Sonko waxul kenn mu dem saaga mais réseaux sociaux yi moo may ñu bari ñuy saaga. il faut que nous les patriotes ñu bañ di seetaan des gars comme man yi nga xamante dañuy toog pour wax le buzz qu'on suive des gens qui sont sensés des gens qui disent des choses en fait des gens qui analysent en fait des problèmes te qui les mettent en place loolu dafa am solo quoi combat bi nekkul ma riirandoo en fait vous savez le Sénégal là pour ñu récupérer ko fii ak bu ñu ko récupérer ñun la bu ñu ko ñàkkee ñun la parce que Ousmane Sonko il a fait ce qu'il avait à faire ah et Parce que ceux qui, sont au, ceux qui contre nous, ils que, parce que comme on le dit, c'est au cœur du danger que l'on est plus en sécurité. Ousmane Sonko nekk na ci façon danger bu nekk man je pense que li weesu Ousmane Sonko mënatul dund lu gën a garaaw loolu donc xam nañ ne ñun suñu biir rek lañ mën a duggu pour ñun ñu yàq d'où l'importance que même Pastef au-delà des autres sujets ñuy indi le sujet du patriotisme ñu teg ko sur la place ñu waxtu lan mooy patriotisme c'est quoi le militant de Pastef Ousmane Sonko, il ne peut pas demander à tous les militants de s'exprimer de la même façon. Il y aura toujours des gens qui vont s'énerver, qui vont insulter, des gens qui vont dire du, du, du tout et du n'importe quoi. Lolo, c'est. Lolo, lolo, d'ougnac. Mais aussi, il faut que aussi, vous comprendre une affaire. Dynamique bi nous jël, 2024. Man, je vois pas un seul leader au Sénégal qui pourrait faire face à Ousmane Sonko si les choses se passent normalement. Amour. amul benn analyse politique buy toog ne la ici d'ici 2024 amul parce que Khalifa Sall ils l'ont tué politiquement yaa ngi dégg Karim Wade ils politiquement mais au-delà de ça Karim Wade il épouse aucune réalité sociologique bu war a mën a tax mu nekk un leader qui peut briguer un mandat au Sénégal amu ko mënu ko Macky Sall il peut pas briguer un troisième mandat et malheureusement pour lui il a pas quelqu'un autour de lui qui a la de faire face à parce que yàlla noppi na bu yàgg parce que nit dafay am plan yàlla am plan Macky Sall bi muy dàq Ousmane Sonko pour toroxal ko boobu yàlla mu ngi ko dencal salaire u député au delà de salaire bi mu ngi ko dencal benn position boo xamante dina tax fu mu waxee Sénégalais yi gën ko dégg gars yi du ñu seetlu sax ñaar yoon la Ousmane Sonko mos a dugg RT mos a feeñ RTS RTS teg ko muy wax muy élection présidentielle. ak bi mu ko Macky Sall boo ne ko kaay ma wax ak yow parce qu'il était obligé mu woo ko parce que usman Sonko représente quelque chose moo tax gars yi am nañ seen i plan moo tax ñun waruñu yàkkamti y' a beaucoup de patriotes yoo xam dañu découragé woon bi ñu génnee ci élection présidentielle yi mu par mais boo defee tout recul tu te dis que peut-être c'est tant mieux parce qu'on est-ce qu'on était préparé pour jël Sénégal en parce que yàlla buy def ay mbir comme nu mu jàppalee woon Ousmane Sonko ci problème mu 94 milliards yi bi muy kii ba bi mu ci génnee. ba moom mu toogal boppam ne yàlla da koo suturaal noonu la ko yàlla di suturaale parce que li muy xeex Ousmane Sonko il faut mu am dimbalu yàlla rek pour mu génn ci ko parce que se bat contre un système et le système au Sénégal c'est c'est benn mafioso boo xamante ni c'est composé d'hommes politiques d'hommes religieux et d'hommes et d'affairistes quand je parle d'hommes religieux nag nit ñi borom xel yi xam nañ ñi may wax man waxuma noo hommes religieux yi nga xamante ni yàlla rek yàlla rek moo leen ñor on a vu des gens qui se réclament ne ay religieux la ñuy dem di ñaan di wàccee kaamil pour un fils de sénégalais qui qui qui se bat pour que des deniers publics pour être récupérés Sénégal la xewee donc il est légitime qu'on parle de, de, de certains hommes religieux mais il faut faire la part des choses en fait te parler d'un homme religieux ne veut pas dire parler de tarixa wax wax dara toute une communauté donc il faut faire très très attention ci foofu noonu mais je le dis et je le répète on est en 2020 2024 yàggul lu ñu am ñun patriote ñun ñoo ko may suñu bopp lu ñu ñàkk ñun ñoo ko ñàkkuloo suñu bopp yàlla desalatuñu dara 2019 jotul woon du woon foofu noonu fekk 2024 on a le temps de comprendre beaucoup de choses on a le temps de voir notre leader grandir à tout point de vue dafa am solo on a le temps aussi ñu raxas suñu parti yi ñu raxas suñu parti bi de revoir les choses de faire une autocritique bañ a teg suñu bët kese ci APR teg feneen ak fen ñu teg suñu bët aussi ci ci ci ci Pastef parce que tout net pas mauvais à l'APR mais tout n'est pas parfait non plus à Pastef et il faut il faut que aussi qu'on qu'on le courage de se dire les choses en fait man Ousmane Sonko man pour man desalatuma dara parce que jël na ay risques yoo xamante nii pour Sénégal man maa ko amee donc je parle pas de Ousmane Sonko. et je parle pas au nom de Ousmane Sonko je suis un citoyen ki ki qui m'exprime je un patriote buy wax lu ñu ñàkk ñun patriote ñun ñoo koy ñàkkloo suñu bopp ñun ñoo moom réseaux sociaux yi attu ci ñun depuis boobu ba léegi attu ci ñun on en profite mais si on fait pas gaffe dina doon coono suñu kaw si on sait pas comment gérer ce réseau social boobu noonu problème lay doon suñu ñun. c'est vrai qu'il y a une responsabilité boo xamante nii c'est les instances parti bi moom moo ko yor moom moo war a xam aussi c'est pas rek toog télé ah non c'est qu'ils insultent non non non c'est pas des patriotes c'est des patriotes qui ont voté pour Mansour c'est des xam BMS am na ñoo xamante ne am nañ carte pass am nañ mais boo dee bu dee bu dee yaa moom réseaux sociaux yi nag da nga koy jël en main nga xool noo koy gérer y a des gens yoo xamante ni qui parlent tu vois qui sont suivis tu vois que c'est des patriotes qui parlent mais de leur parler sans pour autant muy jóg il faut que ñu organiser wu ci réseaux sociaux yi il faut qu'on s'organise il faut qu'on parle à cette dame la man je n'ai rien contre elle je sais, je que elle veut parler mais dese na am xam-xam comme maag mu mayam elle a beaucoup de vues mais je vois pas le pourquoi donc boo bëriwul xam-xam te bëgg di wax tout le temps tu vas dire du tout et du n'importe quoi loolu moom moo ko daal encore une fois awma dara contre moom je dafay dugg ci des sujets yoo xamante ne nii non seulement maîtriser ko mais sur des sujets personnels et ça c'est pas mais elle parle en son nom mais pourtant moom jël nañ ko wax que ne elle parle au nom de Pastef comment est-ce que Pastef doit gérer ça parce qu'on n'est pas dans le contexte de campagne électorale nekkuñu dans un contexte politique boo xamante ne affaire dafay jax imaginez leen bu ñu fa yeggee imaginez leen 2023 2024 Ousmane Sonko waruñu gën a gore quoi man je pense man damay def ay vidéo des fois il m'arrive de dire wala ay wax yu dëgër mais je le dis pas au nom de Ousmane Sonko je le dis pas au de Pastef mais lu mel nii dina tax man muy ku mel ni man jël recul xoolaat ni muy waxee mais je le dis et le répète fii ak 2024 lu ñu am ñun ñoo ko may suñu bopp lu ñu ñàkk ñun ñoo ko ñàkkuloo suñu bopp ñun ñooy nekk suñu propre ennemi. moi je ne demande pas de vues ni de partage de vidéos je le fais pas pour ça en fait moi j'ai juste des choses à dire dama koy wax après avance on inwe on avance quoi mais je voudrais que des gens comme moi buñ di bari lu ñuy wax quoi parce que amuñu xam-xam je voudrais que les patriotes suivez les gens qui vous disent des choses sensées en fait ne suivez pas des gens qui sont là pour faire polémique entre diw ak diw quoi on n'est pas dans que ñun les patriotes ñun ñi nga xam dañu dem ci ci nit ñi di wax ak ñoom ne leen Ousmane Sonko mooy leader bu baax bi Pastef mooy parti bu baax bi suñu programme mooy programme bu baax bi il faut pas ëllëg ñu jàkkaarloog ñoom di leen xool di sëgg loolu nag les dirigeants ñi nga xamante ñoom la yàlla def ñuy diriger Pastef ñoom ñoo ko moom nañu xoolaat taxawaay bi xoolaat toogaay bi quoi. te aussi souvent ñuy ban di jël Pastef di ko def une partie d'élite partie boo xam ay borom xam-xam lañ ak ingénieur ak machin truc c'est pas le Sénégal ay borom xam-xam ñooy diriger mais bu ñu bu ñu diisal Pastef nañ ko teg nañ ko teg nañ ci boole ñëpp ñi ñëpp bokk ci organisation bi ci structuration bi nañ ko xoolaat ci melokaanu parti bi nañ ko xoolaat bu ñu ko tëj nañ ko tijji Pastef dafa war a nekk miniature du Sénégal laa miniature du Sénégal du Sénégal. c'est vrai que pour gouverner il faut des hommes qu'il faut à la place qu'il faut ay boroomu xam-xam mais l'histoire nous a enseigné renseigné loolu rek doyul quoi Pastef bu mu nekk parti wu ay étudiants parti wu ay intellectuels parti wu ay nit ñu jàng bu leen ko def loolu sama gars yi yaatal leen ko te bu mu bu ñu ko def aussi parti boo xamante ne nii métti woon na ba ñuy jóg mu am ñu xeex. ba tey lépp sotti li ñu naan lu sotti am borom rek bu siisu am na ñu ubbi bunt yi yaatal xol yi nit ñi dugg si parce que am na ñoo xam dañ doon xaar ba gis lu day am na ñoo xam ils sont venus très bu ñu leen ko jàppee dara ku nekk période bi nga war a ñëw rek ngay ñëw mais dañ ko tijji te bu ñu ko yëkkati trop bu ñu ko yëkkati trop nañu ko wàccee quoi nañu ko tropicaliser nañ ko nañ ko sénégaliser quoi bu ñu ko def partie wu intellectuelle parce que xam-xam du njàng le diplôme c'est symbolique nit a ngi am diplôme nit a ngi nekk un docteur nit a ngi nekk un ingénieur amul xam-xam bala Moussa Fofana da koy wax xam-xam du pexe nañu wàccee bagage yi nañu gën a xoolaat Pastef bi nan lañ koy toggee mu gën a nekk mbiru sénégalais buñ ko def rek de militants de base yu fi nekk yoo xam dañu gëm nekk ay patriotes ak des gens yoo xam ils s'y connaissent en tout des intellos des machins des trucs on besoin de vous mais y' a pas que vous en fait Pastef dañu xoolaat loolu noonu am solo ci nañ ko tëggee nañ ci moom ñëpp parce que man je connais beaucoup de gens yoo xamante ne nii qui se tuent qui sont prêts là là pour dee ci kanam Ousmane Sonko jànguñu sax donc mbir mi du jàng mbir mi bëgg sa réew la parce que tous ces crétins là qui bouffent l'argent du contribuable c'est des ingénieurs c'est des machins c'est des docteurs en machin docteurs en li docteurs en là vous pensez qu'au Sénégal un inspecteur des impôts et domaines bu def quinze ans dans l' administration sénégalaise ñaata ñoom ñoo ci mën a ñemee taxaw jàkkaarloog Sénégalais yi ne leen def naa 15 ans dans l' administration 15 ans dans l' administration nekkoon vérificateur général vérifier beaucoup de grosses boîtes au Sénégal. taxaw fëgg dënam nekk ci position à peu près nekk mooy koo xamante ni gars dañuy xaar nga def faay rek ñu dóor la mu taxaw ne ku xam kër gu ma am bu dul suma bos jëlal bu fekkente ne am na entreprise bu ma sa taxaw waxuma la sax cinquante franc mais neen sa café ñu jox ko mu naan mais kooku saa yàlla moom moo ñu ko indil Ousmane Sonko nit kese la nag mais dafa am loo xamante ne nii yàlla da koy def te nit du ko yëg ñaata lañ au Sénégal ñoom ñoo ñaata sénégalais ñooy liggéey ci administration ñemee waat que ne man li may dundee sama njaboot li may am mooy li may gañe li nga xamante nii moom la ma Sénégal amel jox ma ko muy suma salaire ñaata ñoo ko mën ba pare nag nekk ci politique nekk ennemi public numéro un wu nguur après on veut foutre en l'air tout ça en fait parce qu'on veut du buzz on veut parler de tout et de n'importe quoi xamuloo dara ba pare bëgg a nekk ci réseaux sociaux yi mel ni man di wax Pastef bu ñu organiser wul Pastef ci biir réseaux sociaux yi Pastef ci boppam bu organisé wul Pastef ci biir réseaux sociaux yi réseaux sociaux yi moo ko naan fuuf fii ak 2024 fa lañ jëm nag parce que nag suñu waa ji gars yi jëm nañ ko war ndomb fu nekk léegi nag ci patriote yi la ñuy jaar pour kalaate lépp affaire bi affaire bi yàqu parce qu'il faut que les patriotes comprennent que le combat bu ñu doon mëne c'était pas pour être pour que Ousmane Sonko nekk président en un début boo xam man ñu mel ni man je suis de ça des fois sax je me dis c'est bien qu'on n'ait pas gagné les élections en 2019 donte bëggoon naa ko nag sama biir xol dama ko doon xeex man ku ma xam-xam ne man damaa jeex ci affaire yi. et je sais que ku soppala Sénégal dugg naa ci lu nekk mais nit da ngay toll foo xamante ne nii dangay am prise de conscience en fait yàlla rek mooy fay sa bët quoi man nag looloo ma dal yàlla rek a fay sa bët man Ousmane Sonko sax yë yëngalu ma man maa ko xool. tàmm ko taamu ko di ko xeexal mu jaral ma lu ne nag patriotisme saa gëm-gëm la dafa neex quoi patriotisme avec ou sans Ousmane Sonko danga koy dund ko donc du Ousmane Sonko c'est le Sénégal c'est le peuple sénégalais Ousmane Sonko benn élément la rek ci chaîne bi quoi buñ j'ai l'habitude di waxtaan ak sama benn copain bi Ousmane Tanor maa ngi lay big up homme providentiel amul quoi benn nit koo xam mooy ñëw génne suñu coono yi amul te du doon Ousmane Sonko Ousmane Sonko sax wootewul loolu bëgg ko c'est pas pour rien Pastef bindoo ni mu bindoo bu ñu waree dem campagne ñëpp dajale seen xaalis pour ku nekk sentir sa bopp bokk ci ñuy dajale nag dafa baa dëkk yow da am sañ-sañ wax parce que loolu moom mooy indi après yàq bi je dis pas que kenn bu mu wax kenn bu mu laajal ku mu neex en tant que citoyen mën nga laajal ko mais quand tu parles au nom quand tu prends l'image d'un parti même si t'es pas quand tu prends l'image d'un parti en fait ci dois da nga war a am man suma premier live ñi ma bokkal bureau Pastef xam nañ ko bi ma commencé def man samay vidéo kii dama dem démissionné dama dem démissionné ci bureau bi ma nekkoon ñoom ñoo ma convaincre ne ma ñëwaata ma ne leen man de des fois samay wax day dëgër ba bu rien que pour bañ yàq ñi ma bokkal Pastef Bordeaux ñu may dégg bi ma commencé di def sama vidéo leen ne dama dama démissionné parce que dama leen ne man. am na loo xam xajul sama bopp am na liggéey boo xam man xajul sama bopp ma yàqu ko parce que boobu tolloon naa ci mer boo xamante ne nii xam naa ne bu ma toogee di wax mun naa wax des trucs yoo xamante ne nii je le maîtrise même bañ ñu jël wax jooju ma wax yëkk ko tibbal ko Pastef moo taxoon ma démissionné pour vous dire que yàlla a le combat politique y a le combat citoyen y a le partisan qui parle y a le citoyen qui parle mais que tu sois partisan ou citoyen da nga am dafa am foo war a ci wax ji. ba ñu yàq liggéey bi nga xam ñun ñoo koy def Macky Sall mënatuñu téye il peut pas il n'est pas capable intellectuellement objectivement parlant subjectivement parlant mënu ko même bu amoon moyen sax cuuna la xamul fu muy jaar Ousmane Sonko il est parti du néant politique même des gens faire des en 2000 machin Idrissa Seck aussi avait le même truc euh, bi muy ñëwee c'est pas la il est né du néant politique. muy Moustapha Niass muy muy muy muy sa Seck bi ñuy jóg bi ñuy jóg bi ñuy jóg di nekk candidat pour la présidentielle boobu xubalaas nañ ci politique c'est pas pareil kenn du Ousmane Sonko te Ousmane Sonko du kenn ci ñoom defu ko yàllaa ko def bëgguma sori trop ci live bi quoi dama gis Marème fay Sall mu def benn opération commando génn dem naan day distribuer ay bagages di ko jox euh, les ko quoi Marème Faye Sall xamal leen ko ne le 7 avril. c'est mooy journée mondiale de la santé gën nga surtout y a des dons surtout y a milliardaires yoo xamante ne xamul foo jëlee xaalis bi pour te dire que populisme moo leen di yëkkati je m'attaque pas à la dame je m'attaque à l'institution à, à, à, première dame je m'attaque pas à Marème Faye Sall je n'ai rien contre lui mais moom la yàlla def mu nekk première dame dafa am loo xamante ni symbole la quoi le 7 avril mooy journée mondial de la santé man li ma comprendre mooy ñu ne couvre-feu moom servir le Sénégal ñu ne dañuy distribuer ay lekk un corps bu mel ni police yaa xayti bu fekkee dimbale rek moo la tax a jóg police yi xam nañ fan mooy fan la ñu nekk xam nañ commissariat commissariat yi police benn organisation la boo xamante c'est structuré ah ba Z boo leen waree dimbale doo leen fekk si terrain bi ñuy liggéeyee mu ngi mel ni yow nawetaan nga dem defar say xon joxoo ko joueur yi regroupement joxoo leen ko ba ñuy préparé nga bàyyi ba ñu dugg si terrain bi di football yow nga jël bagage yi la sëriñ bi jox nga ne nga na leen diwu ci biir terrain bi il faut qu'on man j'aurais aimé que un moment aussi symbolique muy journée mondiale de la santé ñu ne servir le Sénégal offrir na au personnel soignant au infirmiers au nangam tant de masques tant de machins tant de trucs loolu ça colle plus à la réalité mais ce qu'elle a fait c'est du populisme je de le dire c'est du populisme gis leen ma la et puis la a fait très mal gis nga daam bi ni jëkkër di cuune noonu la cuune amuñu xam-xam zéro xam-xam moo tax ay bu bu ñuy def lu baax sax affaire bi day wëlbati ko bon parce que defu c'est extraordinaire ce qui se passe dans ce pays là on est contexte coronavirus la balaa maa terminer ci vidéo bi damay ñëw ci coronavirus bi dama koy wax di ko waxaat. état d'urgence man je suis d'accord ñu jël état d'urgence mais couvre-feu bi ñu def nii deful dara lu créer du grand et du n'importe quoi parce que effet contraire bi nga waroon escompté yow ci décision bi nga jël parce que man j'ai l'impression que ci décision yi suñu gouvernement bi dafa jël dafa jël ay mesures pour ne oui jël na ay mesures c'est pas ça boo defee couvre-feu si tu si tu dis aux Sénégalais sortez entre 6 heures et 20 tout le monde est dehors contact machin moo tax cas mi ngi ñëw te jeexagul dinaa ci ñëw sànq dinaa ci ñëw léegi. dem leen ngeen def lu leen neex ci journée bi allez faire ce que vous voulez sur place amul benn mesure d'accompagnement buy wane que dañu nekk ci benn situation de guerre xam nga comme bi muy voté son truc là de de de parrainage Sénégal mel bunkerisé Sénégal donc tu le sens même pas sortez allez ce que vous voulez mais ah 20h léegi 17h 18h bu jotee ñëpp ma riirandoo am leen croisement Kër Massar croisement parce que les gens il faut ni nii xamoo ci moo leen tax a des ville leen di dóor bëggoo vingt heures fekk la fa bëggoo ñu ndulli la bëggoo ñu dóor la te buñ lay dóor gars yi teg ko ci réseaux sociaux yi say doom ak say jabar ak ñëpp di ko gis mais 18 heures 17 heures bu jotee nit ñi daw dajaloo ci kaar yi kërëb kërëb jàppal bàyyi virus bi di taxawaaloo nu ko neex waaw virus bi di def nu ko neex parce que le gouvernement il communique waaye Sénégal affaire bi extraordinaire on maîtrise des choses tant de guéri tant de machin bu ñu naxante ici en France en Espagne aux fi feebar bi def ay dégâts yépp les le premier mois les trente premiers jour ba les quarante premiers jours amul benn dëkk bu ci amoon ay sanka il faut que ñu wax loolu sénégalais yi Sénégal le 2 mars la ñu commencé woon di annoncer les trucs là ñu ngi ci le 2 avril ça fait 30 jours allez voir les données France Espagne Italie Chine états uni lépp bi ñu defee weer amuñu 100 cas loolu lay dëgg boo xoolee fii en France ça a au mois de janvier vers le 6 8 janvier quelque chose comme ça ça commence à exploser à partir de mars fin mars début avril donc toog fii euh, le gars là ministère de la santé ok il fait son boulot ou pas loolu c'est à mais toog di communiquer dans le il faut dire la vérité au Sénégalais le combat ne fait que commencer mais arrivé à un certain moment va falloir prendre des mesures yoo xamante ne nii mënul ñàkk xaw ma confinement semi confinement xaw ma lan mais mënul ñàkk man li ma gën mooy il faut prendre des mesures yoo xamante ne ça va dans le sens de suba dañuy def confinement et qu'on le fasse vite on parle de qu'on a dajale mi ngi dem rek ñeent dégg naa si télé naan Sénégal dañu war a toog toog xiif ak dee ak xiif mais vous donnez d'abord à manger au Sénégal après ngeen ne leen toog leen on est en guerre mais les gens c'est comme si ils sont dans les ñu ngi xaar waaye on a 1000 milliards mais les 1000 milliards est-ce war a xaar yow 1000 milliards yëpp pour jël milliards yi war a dem ci sénégalais yi nga jox leen ko loolu moo war a nekk urgence 69 milliards yeeg 12 milliards yi ñuy wax ci diaspora bi dinaa ci ñëw léegi nañ leen ko jox jarul xaar quoi on est en guerre. bu doon xaalis bu ñu bëgg a sàcc léegi ñu def ko xaw ma leen procédure d'urgence machin truc de xoolal def ils savent ce qu'il faut faire en fait vous donnez à manger aux Sénégalais les plus vulnérables après vous leur demandez de rester chez eux vous ne pouvez pas dire aux Sénégalais restez chez vous waaye sortez mais bon couvre-feu am na sortez jusqu'à telle heure mais bon ñi amul soxla kan moo amul soxla donc vous voulez dire que Sénégal ak état bi mënuñu génnee taf taf 69 milliards mooy ñu fi nekk ci procédure waaye Mansour Faye ñëw na mooy joxe nii c'est le c'est le Mansour Faye mooy maire trésor Mansour Faye c'est c'est un ministre dañ ko jox liggéey mu def ko bu mu ci def benn gain politique l'argent que vous donnez aux Sénégalais là xaalisu Sénégalais yi la génnewul ci poche Macky Sall génnewul ci poche état et l'état c'est le état nation la génne leen xaalis bi ngeen jël y a des mesures qui doivent en fait parce que on parle de cinq cas communautaires il faut que les Sénégalais restent chez eux loolu c'est une obligation c'est un impératif mais pour ce faire il faut que l'État prenne les devants le minimum mooy xam nga du vivre en fait ñu jox Sénégalais yi nga xamante ni mënuñu ko ñàkk am un parce que tey on parle de ban stratégie la ñuy un état organisé warul woon sax am problème un état boo xamante ni tout est calé il y a la décentralisation qui est là la déconcentration qui est là il y a les Hmm? nga teg ay mesures yoo xamante nii dinañ mën a vérifier xaalis bi est-ce que affaire yi est-ce que ngi dem fi mu war a dem loolu la Ousmane Sonko doon insister mais fii la nekk di teg ku nekk di xool lan la ci mën a am dañuy louer ay camion kan mooy louer camion yi ñu xool un partisan de APR bu yor ay camion ñu jox ko ku nekk mi ngi xool xoolal gars yi ay jinne lañ gis nga gars yi si ay jinne lañ coronavirus dañuy xool lu ñu dóor lu ñu lekk mais je pense toll nii mooy c'est da du sax masque yeeg affaire yi nañu fexe d'abord sénégalais yi toog seen kër à partir du moment où ñu ngi wax cas communautaire mooy kaa boo xam xamuñu ku ko wàll xamuñu fu mu ko amee ça veut que affaire yi mi ngi lay échappé looloo tax fii ci dëkk yi mu explosé après deux mois quarante cinq jours affaire bi explosé parce que après cas communautaire yi parce que cas importé xam nga ki ñëw xam nga fi mu dëkk xam nga fi mu jaar mën nga ko suivre récupérer mais cas communautaire c'est compliqué et à ñu ngi koy am aujourd'hui on a zéro cas importé cinq cas communautaires c'est le moment de confiner les Sénégalais mais pour confiner les Sénégalais il faut d'abord donner à ceux qui sont pas qui ont pas assez de moyens de quoi manger léegi nag naka lañ koy defee faluñu Ousmane Sonko faluñu ma faluñu la yow mi seetaan ñoom la fal ñoom ñoo ne xam nañ mën nañ ñoom ñoo war a xool fan la ñuy jaar ba Sénégalais yi jot ci suñu yoon nekku ci loolooy seen liggéey looloo tax ñu leen di jox leen ay kër jox leen ay oto gis nga privilège yooyu moment yii nag lañ leen soxla fii du kenn benn jënd mooy ñoo wax leen fu ñuy jaar ñoom ñoo ne mën nañ ñu jox leen Sénégal ñoom ñoo war a xam fu ñuy jaar ba Sénégalais yi jot li ñu war a lekk ñoom ñoo yor état ñoom ñoo ko laaj joxuñu leen ko ñoo fi distribuer ay milliards dugal fi parrainage sàcc élection yi nu leen neexee na ñoom ñoo gagné ñoom ñoo mën ils sont beaux ils sont machin ils sont truc fañ fañ fañ fañ te wàcce caa ma léegi jox nañ leen réew mi Sénégal toll na nag ci problème xaaru leen ko woon de bii yàllaa leen mën léegi léegi donner au Sénégalais là, qui n'ont pas de moyens, à tous ces artisans qui doivent sortir la journée pour aller chercher la dépense quotidienne, donner leur au moins de quoi manger pendant un, deux mois et vous confiner. Parce que confinement, mon bagne, bagne, bagne, bug, dinañ confiner. Sénégal, mon, ñaan lañ ok, julit, catholique, ok. lii nak c'est une réalité, confinement. Waaw, nañuy ñaan te confiné wu. Confinement mom dina am. ñi ne woon nag mën nañ ñoom ñoo aay ñoom ñoo garaaw marron beige ñoom ñoo mën ñoom ñoo xam bennoo bokk yaakaar waaw kay nag léegi wane leen li ngeen mën nag kenn du leen fi wax fi ngeen di jaar pour jox Sénégal yi li ñu war a lekk mais confinement xam ngeen ne c'est les spécialistes xam nañ ko mënuñu ko ñàkk def mais balaa nga naan sénégalais yi toog leen seen kër jox leen d'abord lu ñu lekk le minimum nga mun leen toog la seen parce que fa lañ toll force force force force force loolu il faut mu am waaw mënuñu def nu keneen def y' a rien de d' extraordinaire y' a rien d' exceptionnel di jiital fii di garaawal ay temps de guéri machine guéri temps de guéri vous avez le temps de guéri des malades parce que <laughs> y' a pas encore ce rush là vous avez des centaines de malades bu ngeen deful confinement ba malade yi di compter ñaanu ma ko yàlla ay mille dix mille on verra bien si vous allez soigner les gens parce que ici c' est pas que les gens il faut faire soigner yow bu fekkente ne da li nga mën a faj yow médecin ak loo ay ay ay juróomi nit nga mën a faj ci bës nga xëy ñe juróomi téeméeri nit ñëw mais loo ci man loolu daal nit ñi di dee ñun confinement rek la ñu mën a def nañu confiner sénégalais yi pour confiner les sénégalais si à l'état de trouver am xaalis bi mi ngi Sénégal yaa ngi dégg xaalis bi mi ngi Sénégal les milliards là nañu ko génnee jënd ko ay vivres jox ko sénégalais ñu toog seen kër yi du serait-ce que 15 jours wala un mois loolu. nuñ ci gën a mën a teel a demee rek ñu gën a mën a con contre feebar mais toog fii euh, Diouf Sarr ñëw naan tant de guéri machin tant de truc feebar bi dans tous les pays yi mu explosé premier mois yi ay 100 cas nga doon am comme Sénégal ni mu dem Sénégal sa ëpp na Sénégal en un mois weesu di dem France fii nii ah, un mois wu feebar bi motuñu woon 100 Italie noonu feneen ak feneen noonu cas communautaire yi bu nee pël nag mooy cas boo xamante ne xamoo fu mu ko jëlee ka ko ko wàll ak na mu ko jotee ak fa mu ko jotee Sénégal yi li a suul te bàyyi populisme bi Macky Sall moo leen gën a xam ne yaa am problème coronavirus bi c'est un problème très très très très sérieux voilà du ma terminer du ma jaajëfal suñu personnel soignant bi malgré que ñu ngi travailler sur des conditions yu désastreuses parce que d'après information yi ma jot maa ngi ko gis ci benn benn chaîne de télé C5 euh, français ñu benn benn documentaire bu ñu def benn document benn en tout cas. ci journal benn benn documentaire bu ñu def au Sénégal que ne a cinquante respirateurs dans tout le territoire sénégalais vous savez que ça c'est c'est extraordinaire et puis ces cinquante aspira ces ci yan ci yan ci ban condition la nekk coronavirus bi aussi warul tax ñu fàtte ñiy dialyser les cancéreux les autres pathologies yi nga xam chroniques yi nga xamante ne am na Sénégal c'est un problème très très très très sérieux il faut qu'on mette la politique de côté et que ñu confiner les Sénégalais pour confiner les Sénégalais parce que je que confiner les Sénégalais les gens vont moom moo fi sës ñi ñu fal ñu ne woon mën nañ ñoom ñoo mën te xam nañ dañu war a confiner Sénégalais léegi nag nañu chercher les voies parce que nag jiite du rek damay tabax stade kii cent milliards kërëb damay xëy tabax terre de affaire bi fii la voilà dem wax sénégalais yi couvre-feu 18 bu jotee affaire yi mel ni tulleeg Mali couragement Kër Massar couragement Cambérène gars yi di mbëkkante nu ne a war nga ne tuy lutte contre le coronavirus journée bi ñu ne leen dem leen faites ce que vous voulez au nom de quoi parce qu'on peut pas confiner par quoi pourquoi parce qu'il y a pas de moyens foutaise on a les moyens bàyyi leen naan Sénégal dafa pauvre le Sénégal n'est pas pauvre vous avez appauvri les génnee leen alalu réew mi ngeen jox ko population bi xam ngeen fi ngeen war a jaar dangeen ngeen tàmm di importer ay concept démocratie ñu importer lu ñu dégg importer lu ñu dégg importer lu ñu dégg importer lu ñu leen tropicaliser du ñu ko mettre en adéquation avec nos propres réalités yaa ngi dégg corona bi bu mu commencé dans la communication ñun on avait am nga ay ay ñun on avait des réalités endogènes yoo xamante ni mënoon nañ ci jaar pour communiqué yaakaar ne Europe fii nii dafa da nga am si si dëkk bi jàkka yoo xamante ne nii un kilomètre boo dox gis jàkka même boo ko tëjee nga waroon ko mënoon utiliser pour communiquer Sénégalais yi tàmm nañ di dégg noddu cinq fois par jour nga mënoon di jaar pour communiquer les ASC et tout hein hein vous avez raté au début la communication sensibilisation vous pensez qu'il faut prendre des gens qui viennent à la télé qui machin qui parlent aux il faut que les sénégalais le vivent comme bi ngeen di voté seen loi yi ni gis gars yi di gisee dëkk bi nga xam ne fii am na lu xew sénégalais yi loolu la ñu war a gis parce que je pense que les mesures qui ont été prises dans l'optique de faire en sorte que les gens ne parce que 18 fajar fu mu jotee 17 heures 18 heures fu mu jotee nit ñi di wut fu ñu ñibbee seen kër parce que dañuy bañ ñu dulli leen dañuy bañ ñu dóor leen dañuy bañ ñu dóor leen c'est la triste réalité du ma jeexal nag te aussi bon état d'accord mais aussi y a la responsabilité individuelle de tous les Sénégalais ku ci nekk aussi am nga ci benn responsabilité individuelle ku ci nekk jàppal ne man bu ma toogee sama kër rek je sauve une wala je sauve des vies su ma sama kër rek je sauve des vies ku nekk bu ko jàppee noonu rek jàmmul nañ ñooy voilà ñu gérer parce que lépp aussi du neex ci côté gouvernement bi dinañ leen dal mais aussi lépp du neex ci ñoom gars yi aussi il faut que ñu am responsabilité boobu aussi parce que nu mu ci gën a a teel a affaire yi gën a mën a teel a dem parce que suñu alal mi ngi ci réew mi mais ay benn benn ñoo koy dugal ko seen poche yi comprendre nga situation bi moo garaaw rek mais ñu ngi xool situation buy xaw a leer bu ñu déconfiné woon France ne vol yi baax na ñoom ñëpp ñu daw ñibbisi ñi dem France ñi dem États-Unis ñi dem feneen xam naa nag situation bi ni ko yàlla bindee moom mel na noo xamante nii moom ñëpp ci bokk yam ku ci feebar Sénégal ngay fajo kenn dootul jël vol waaw donc euh, lii laa amoon wax je pense que au début j'ai un peu insisté sur le fait que ñun les suñu toogaay xool na ñuy waxee et que Pastef aussi ñi ko yor gën a xoolaat parti bi gën a xoolaat taxawaayu parti bi ci réseaux sociaux yi bañ a rek dégager seen responsabilité ne ah non réseaux sociaux yi muy moo xamante nii dina gën a tax affaire leer ci bopp ñëpp quoi et aussi patriotes yi nga xam ñoom ñoom ñoo ëpp ci réseaux sociaux yi mais vous suivez des gens qui vous disent des choses yu kii quoi mais benn xam nga benn affaire bu mel ni man benn gaay ñëw taxaw fii yëkkati dënn wax kii gars yi topp ko trente millions de vues keneen jóge fële di wax waxu dof ay cinquante millions de vues il faut que aussi yooyu ñu xoolaat ko quoi di partager ay informations yoo xamante ne nii day gën a dëgëral suñu combat quoi te moytu polémique bi quoi et puis les sujets sensibles là moi je dis pas faut pas toucher les religieux parce que y a voilà ça reste des symboles quoi des symboles très très forts et je pense que Ousmane Sonko il a toujours œuvré dans ce sens dem na ci kër kilifa diina ja parce que loolu nga nangu nga ñàkk nangu nga nekk murit nga ñàkk nekk murit le mouridisme c'est une réalité au Sénégal nga nekk tijaan nekkoo tijaan c'est une réalité nga nekk catholique nekkoo catholique suñu mbokk catholique c'est une réalité au Sénégal yooyu c'est des acquis yoo xam qu'il faut consolider ça ça participe au renforcement la cohésion sociale bu ñu ko laal trop maintenant loolu moom am na te loolu bu ñu ko waree critiquer il faut le critiquer mais da koy teg ci dara quoi comprendre mais bañ a tëf nii rek quand même di di di di di di di di voilà di wax yoo xamante ne nii mooy loolu noonu quoi donc patriote yi fii ak 2024 fi ñu bëgg a yegg xam nañ ko ñun ñoo fa yóbbu suñu bopp ñun ñoo ko yàqal suñu bopp ñoo fa yóbbu suñu bopp ñoo ko yàqal suñu bopp parce que ñu jàkkaarloo nii moom il faut pas le poids. bu fekkente ne l'objectif c'est vraiment c'est pas de gagner pour Ousmane Sonko nekk président mais l'objectif c'est de gagner pour changer la donne l'objectif c'est de changer pour li nga xam ñun moom lañ ñu gëm le patriotisme le don de soi pour la patrie là ñi nga xamante ni ils sont animés par le fait que dañu bëgg Pastef gagner pour ñu def dara pour ñu nekk dara pour ñu am ndombal tànk franchement c'est peine perdue parce que duñu ko nangu quoi lu demee noonu quoi na nekk benn engagement bu désintéressé tey Pastef bu moom ba toog buñ la soxla loo xam méngoo naag sa xam-xam sa éthique ak sa déontologie ak sa mën-mën nga dem engagement bi nu toll foofu noonu quoi juste que Sénégal gagné juste que Sénégal changé quoi et que ñu xeeblu suñu bopp ñu teggi suñu bopp te xam ne même Sénégal buy changé sax xëy na ñun suñu génération voilà mais peut-être génération yi ñëw quoi donc c'est le combat patriotique dafa dafa désintéressé le combat patriotique newul ci nit newul ci période c'est juste un benn engagement booy def pour sa dëkk te bañ ci xaar dara en retour lu dul dëkk bi fi nga bëgg mu yegg mu yegg fa loolu rek moom moo ci nekk quoi voilà donc gars yi maa ngi yem fii man duma doon def live d'habitude dama doon def benn vidéo balancer ko mais je pense que tey man je me suis permis ma def live mais kuy def live mun nga wax ci problème mu sénégalais yépp te bañ a laal symbole yi nañu bàyyi suñu symbole yi bu ñu yàq yoon bu ñu jël bu ñu ko yàq bu ñu yàq yoon bu ñu jël jusque laa yàlla mi ñuy suturaal ñu ngi jóg di daanu jàppal Ousmane Sonko jëlal Ousmane Sonko ëmb na ay cheikh wasin na lu ne wax nañ ko le gars il a fait 15 ans dans l' administration sénégalaise bu leen ko fàtte moom toog na télé ne ku ko xamal beneen kër bu dul bi mu moom na ko jël ku xam cinquante francs bu mu mës a jël il a vérificateur général mooy ñuy vérifier les grandes entreprises là les cimenteries là yi nga xam c' xam nga 15 ans yooyu mu mu gëm boppam. ñëwaat dugg ci syndicalisme def fa mucc def fa liggéey bu mucc ay ba jël ko di ko joxe ñu ne ko noonu continuer mu ne non man docteur bi laa bëgg a indi c'est pas parce que bëgguma def ni moomaan ndaw joxe ko ñu def ko ñu def ko président honoraire xaw ma secrétaire général honoraire mu ñëw ci politique bi lu ne mu déy ko ci lu ne ñu def ko lu ne ñu wax ko ko lu ne lu ne lu ne lu ne lu ne lu ne ñu koy xeex di ko xeex di ko xeex di ko xeex di ko xeex di ko xeex di ko xeex di ko xeex ba ñëw fii nii nii desatul dara lu boulevard bi ne ñu mu ngi nii Ousmane Sonko il suffit juste que mu reste ci lancé 2024 ñu jël li ñu moom xam nga ñun patriote aussi ñu bëgg fi ñëw di galgal di dugg di génn di wut ay di wut ay nombre de vie di wut ay jema bu ma kenn jam man je m'en fous nombre de vie ka mu nekk 10 ka mu nekk 50 sama yoon newu ci li may wax nii dama koy wutuma ci leneen waaw man du ma sax liveur voilà bar très sincèrement wutuma ci lenn wutuma ci loolu mais nañ ko comprendre noonu quoi xam nga nañ ko comprendre woon fii ak 2024 jege na trop mais sori na trop aussi lu ne mën na ci xëj te gis nga système bi ñu ko seekal nii <laughs> c'est pas encore gagné de sama gars yi di ñaanal ñëpp yàlla mu yàlla musal ci coronavirus bi voilà euh, les patriotes sont focus ci combat bi nañu moytu yenn détails yi. bon erreur aussi bu amee souvent nañu xool nu ñu ko organiser suñu biir ba du amati cette femme là peut bugguma ko tudd xaw ma ko c'est une patriote dans son cœur peut def na lu mu def mais comme je dis on ne juge jamais une personne sur un fait qu'elle fasse ou pas y a une façon quand parce que Pastef aussi réseaux sociaux yi aussi bu ñu jël rek ne ok mais dafa war a am benn liggéey bu war a am aussi ci biir réseaux sociaux yi a def naa ne ay borom xel lañ xam nañ nan tax quand la communication dans les déjà yam qui se réclament de Pastef xëy na ay patriotes lañ aussi man gëm naa ne ay patriotes lañ sax mais erreur mënul ñàkk bu ñu juger aussi une personne sur un fait nit bu ñëw def benn erreur ci rek àddunaam rek nga bëgg ko jëlee faxas ko loolu baaxul voilà di leen ziar di leen jaajëfal xam naa peut-être fii ak euh, fan yi yàlla ñu yàlla sàmm jaajëf sama gars yi tawfeex